cay déclaration déclaration de patrimoine yi lée tribune yéene kaay ne kon ci weeru ah. ab système boo xam ne kon yorin gu mucc ayib la bonne gouvernance dëggantaan waaw jàpp leen ne kon ministre yooyee duñu xaar sax njiitu réew mi kon di leen yede wala boog di leen non njiital forum civil ya mucc ndaxte Seck nee gis nga la loi 2014 17 waaw dañu ko violé loolee mar di tali waaw parce que ministre yi ci boppam ginnaaw bañ leen falee wala ñu teg fa ñetti weer war nañoo def kon déclaration de patrimoine looloy dëgg même ministre yi nga xam ne sax maanaam kon dañoo jóge ci gouvernement bi dañ a war woo aa Ibrahima Seck ne looloy dëgg le soleil yéene kaa ne en tout cas ci fanweeri ak juróom fanweer ak ñeent yee kon def nañ seen déclaration vox boobu bi day ci njiital jiital opposition bi ah mais loolee la et puis nag daa teel moo njaay Cissé nag jàpp na ni kon ñetti opposition ñoo fi ne benn bi day élection présidentielle yii la génn Idrissa Seck la benn baa nga ca assemblée nationale waa PDS la beneen ba nag mooy li yàlla dogal Ousmane Sonko opposition de fait li yàlla dogal Sonko la colonel Abdourahim Kébé waaw nee na opposition dëggantaan waay waay doo bàyyi nguur gi ni lee lalal ba sang tapis muy def lu ko neex ko a joxee boo xam ne dañuy pat pataaral laa ab opposition dañ laa war di sentir nga nekk ci wetu askan wi lée colonel Kébé yemu ca waaja nekkoon ca Idrissa Seck day nee gis ngeen lii pour tourner bopp nit ñi rek di leen divertir te Macky Sall nag loolee def cee aay Macky Sall fi mu nekk ni mi ngi xaaj opposition bi laa wax bu deful rek ma ngay jéem a noppi loo ay nit yoo xam ne kon ñu ngi nekk ci biir opposition bi Mamadou Lamine Diallo day ci tribune yéene kaay waaw nee lii dil politique la dialogue a def politique bi élection locale yi day waaw bilaay démocratie di taali Mamadou Lamine Diallo ne xanaa xamoo leen ne gis Sall mii dana def lu ay sondage ci commune Sénégal benn cabinet privé defal ko ko bu defee nag mu mën a tànn Macky Sall dana wut ak élection locale dindi parrainage boo xam ni mënta ne daal di fal ay maire suffrage direct te loolee am na ko ajalogëram yi lay bu boobaa nag mu daal di gorkoon opposition wax Macky présidentielle yi lay le a kaddu yii nga xam ne moom lañ yëkkati ba nuppi nag parti politique yi nga xam ne wutum dërëm lañ fi nekkee gars yi dankaa fa nañ leen de moo njaay sii ci tribune yéene kaay waaw nee gis nga statut chef de l' opposition waaw koppar ga nga xam ne moo nekk ca ginnaaw loolee lañ waroon a dindi looloy dëgg les écoles yéene kaay ne dialogue politique ba day waaw pataas bu tàng boobee nga xam ne nag moom mooy chef de l' opposition ko ba suba de waaye juboo nag léegi am na ci ab maire wala président conseil départemental bu dem ba tële élection locale yooyu waaw Macky Sall day daal di ne dajale nag staff am bokkoon ca palais ba la ilaha illallah critique yéene kaa ne troisième bi mënta ñàkk waaw ñoom xam nañ xel ne du yomb waaw tax na nag ba palais ba fi mu nekk nii recruté nañu ay débatteur ay nit ñu leen di demal ci télé ak ci rajo yi di débat eh way samba box li ne ngelaw ak riir lii nga xam ne moo nekk ci Afrique sow jant day troisième mandat bi di jaawa di waaw nee na na ko la wax xeex troisième mandat Dakar ko Alpha liggéeyal na Macky Sall day guddi gu bët setagul gis nga mandat de trop ah boo sàgganee nag moo nar a dugal le ci guta ci musiba mbaa ba kumba maar de taali direct news e soldaar yi nekk ca Mali day waaw gu ñu IBK de ak fi nekkoon premier ministre président assemblée nationale bi bi dee ko dee grec de gars yi daal jotaguñ seeni téléphone amuñu internet ñenn ñi moom soldaar yee leen di ñuy lekk ba léegi ni lee yéene ne kaa ni ubbite université Anta Diop gu Ndakaaru day ni sabar gu tas ndar géejee ngénte tubaab étudiants yi waaw ñetti fan yoo xam ne restaurant amul fay yooyu samba waaw laas ne corona gi tasaaroo day waaw dimanche fa léegi ni lé kenn deewul alhamdulilah source ané Sénégal day waaw yaakaar léegi juddu na kaa yaa ngi wàññeeku de alhamdulilah l'observateur ne waaye business bi nga xam ne moo amoon ca covid jë waati na de gel yeeg ñoomin seen daanaka léegi gars yi jëndatuñ de Ardo ñu ngi day ak niñ ko doon dóoree waaw la dal Arona si mooy yoo colonel Sarr gendarmerie de maar di taali 24 heures yéene kaa ne noo ne ñu def Ardo ñu ngi waaw am na ci ab diplomate boo xam ne day ma ngay wax nag ci gendarme yi ak ni ñuy torturé doomu adama yi di leen dóor libération yéene kaa ne Sacré Cœur day waaw attakat bi ah daal di nay dàq nag waa Auchan mar d' Italie dama ne la tribunal ba day waaw nee na Moustapha Diop a marre day dañ leen ne kon eh, kon ñoo doon ñaxtu kon kon teg leen loxo la ilaha illallah Le Soleil yéene kaa ne la ñu ca pôle urbain bu jam ñaa jógale waaw juróom-ñetti projet yoo xam ne day validé nañ ko te toll na ci ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar ci ay milliards la ilaha illallah waaye ana projet yi nga xam ne kon moom la Macky Sall digoon waa Touba noo Macky Sall kay bu waratee dellu ca Touba googee jàkkaarloo xalif généralu murid ya il faut ñu aal ko ay noir fumé waaw waaw parce que Macky Sall ba mu nekkee candidat Benno Bokk Yaakaar ca jamono waaw la mu digoon xalif généralu murid ya day 3 ne buñ ko waaw dana fa taxawal ab parc industriel xam ne day ak aéroport eh way Samba